jafe-jafe yu tar yi nga xam ne quartier yu nekk ci wetu décharge Mbeubeuss di dund neexul benn yoon yenn ci askan bi ndaxte foofu xet bu ñuy nooy bon na te léeg mu ngi leen julal bu baax ay gàllankoor ci wàllu seen wér-gi-yaram te amuñu sax ndox bu set bu ñuy naan moo tax ñoom ñuy sàkku ci nguuru Sénégal ñëw dimbale leen jafe-jafe yi mooy mooy fumée bi nga xamante ne moo nekk fu nekk en même temps jafe-jafe ndox ñu ngi ba léegi ñu ngi dëkk ci ndox mi en même temps jafe-jafe ndox liiron ndox boo ko rootee fukki dërëm ngay fay ñu indi la ko sa kër am amuñu tali amuñu canalisation amuñu hôpital amuñu marché amuñu pharmacie amuñu dara ñaari ambulance lañ am tey boo amee tey kuy matu nga war ko yóbbu hôpital ci sareet nga koy yéegal bu fi nit gaañoo ñu war koo yóbbu ca morgue ba ci sareet nga koy yóbbu lépp lu ñuy def dañ koy defandoo ñun ñi ñu nekk benn xëy bu ñu xalaatu kenn suñu objectif la ñu xool képp ku ñu mën a dimbali ba ñu dañ ci lii ñun ñu ngi lay tàllal loxo combat bu sérieux dañoo bëggoon 101 délégués quartier koo xam ne gis nga ñu seetaan nga wala dégg ñëwal bokku ci xeex bi. moo tax ñoom samp nañ benn association ngir ñu gën a mën a taxaw. si jafe-jafe yooyu ñuy dund. xeex bi nag firiwul dañuy jël ay ay kii di xeexe état bi déedéet. dañoo bëgg association bi suñu taxawee rek ñu song loolu. ci biir quartier dugal canalisation yi dëkk dëkkuwaay bu baax air boo xam te ne mooy air bu pur ñu koy noyyi. parce que ñu bëri dañu wax ne ñun ñoo dëkk ci ndox mi déedéet ndox mi moo ñu fekk si fii mosuñu dëkk si parce que suñu kër yi ay ay titre foncier lañ. lii daal moo soxal. yëkkandoo di yeewoo ci Kër Massar. dende mbëbës taataan nañ kàddu yooyu gannaaw bi nga xam ne dañ amal benn ndaje bu mag ngir teg seen kuréel bu association des riverains du lac mbëbës te kii di Abdou Karim ko. situation difficile des quartiers limitrophes de la décharge de Mbëbës dont un environnement malsain avec des menaces de santé publique, les populations déplorent et sollicitent l'appui de l'État. Il y a la pollution, donc il y a la fumée il y a l'inondation, les gens vivent dans l'eau, il y a l'eau qui est là, qui nous fatigue, il y a la fumée, on n'a pas un environnement sain, il y a manque d'eau potable. amuñu tali amuñu canalisation amuñu hôpital amuñu marché amuñu pharmacie amuñu dara ñaari ambulance lañ am Tay bo amé tay kuy matu nga war ko hôpital ci sareet nga koy yéegal bu fi nit gaañoo ñu war koo yóbbu ca morgue ba ci sareet nga koy yóbbu bëgg mu joggé fi. on est en train de voir comment régler l'inondation on va essayer de, de booster l'État pour qu'il nous facilite une ville saine il y a des cadres dans tous les domaines donc des gens qui connaissent l'administration donc on a en même temps des relations avec les ONG on a des relations avec l'État et des gens qui peuvent nous aider. Ils ont d'ailleurs décidé de se constituer en association pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Donc on n'arrive pas à avoir un environnement sain. Donc c'est ça qui nous a poussé jusqu'à mettre en place une association qui veille sur euh, tout ce qui est santé et tout ça, donc les, infrastructures et tout. Donc c'est une très grande association qui regroupe 14 euh, quartiers. Mais on, tend la main aux autres quartiers pour savoir que cette lutte-là, c'est pour nous tous. Les habitants du département de Kermassar ont étalé ces propos au cours d'une assemblée générale constitutive de leur structure dénommée Association des riverains du lac Mobos avec à sa tête Abdou Karim Gueye.